Comme je vous l'annonçais, on est toujours dans Pause Café avec euh, Abdou Salam Diaye, un styliste opérateur économique. On va parler des perspectives politiques et des perspectives sociétales. Tay, ñu gis que Ousmane Sonko dafa am ñu en train de ci mel ni Guy Marius Sagna ku ci mel ni El Malick euh, Ndiaye ku ci mel ñi nga xamante ne mooy Amadou Ba ñoom Abass Fall ñoom dañu taxawoon ne Ousmane Sonko day bokk par la force ci élection yi su bokkul élection du am ci réew ñi jàpp Ousmane Sonko ñu ne leen nañu wut plan B ñu ne ñoom amuñu plan A amuñu plan B benn candidat la ñoom il s'appelle Ousmane Sonko. Mhm. jour bi ñuy joxee liste parrainage ñoom ñeent ku ci nekk dem jëli ji listam. Mhm. tey yow naka nga jàngatee position boobu nga xamante ni kii di Guy Marius Sagna def na ko. kii di Amadou Fall def ko ñoom ñoo ne la dama ne di la euh, euh, Pastef. waaw jeex na. jeex na mais rey ah, nañ ko moom ko. waaw ah, d'accord waa léegi. kon léegi nit ñi deewuñu. waa léegi nit ñi deewuñu Pastef kan la Sonko waaw Sonko ba léegi bu mu nekkee si kaso bi wax na. intermédiaire la ñuy man gëw ma hmm. man lu ma gëm mooy Sonko xam naa dëggoom waxam. Hmm. defagul benn sortie. waaw mais ku nekk kaso nu muy defee téléphone. wala amul téléphone ba tey <laughs> avocat mun na wax pour moom. la ñu wax. kan la àndal. ah la àndal boppam boppam la gëm. bopam validé guñ ko mu ngi ci kasso bi léegi atta li xew mooy bu su élection yi Sonko dina wax ku muy àndal loolu dina ko def bu boobaa nag ku mu neex and ku la neex non mais ça à dire ñi nekkon ci ginnaawam favoriser ko teg ko ñooñu wëlbeuti ko tay mel dañ ko poignardé dans le dos au moment ko moom mu yónni ay dafe ñoom ñu jëli ji ay fiche dégo ma de jënd politique Sonko xamul luy sénégalais Sonko ne connaît pas les sénégalais maanaam ñi mu àndaloon dañ ko doon jey. bo jey Sénégal daa ñaata yoon lañ la fi jey. Wahyo, ya, Gandu mau waaye bàyyi ma waaye. Abdou Gandu Niang attends Sonko tey attends tey Sonko tëj nañ ko ci kaso bi gisoo fi benn à part Casamance. Sénégal moom soo ci nekkee yow la yow la mais bés boo amee problème dootoo gis message. dootoo gis appel téléphonique dootoo dégg kenn ya. nga di dégg mooy neex dama ne c'est eh, dommage nag. nit ñi nañ am valeur. yow doo ànd ak diw ba pare suba nga bugg ko poignardé. Macky ñi c'est am droit parce que màgg nañu ñoom tamit. bëgg nañu bay seen yoon tool. mais mais bay sa tool boobu aussi fi ñu ko jaarale moo rafetul parce que ñoom ñoo taxaw ne Macky. tànn la ñu àndal waaw koo tànn moom la ñu àndal soo nee weex la ñu ne taal. waaw soo nee ñuul la ñu ne kuk soo nee xonk la ne. dama ne la ne Amadou Ba ñoom ñëpp dañu waroon ñu commencé frustré wu ça veut dire que ñu ngi doon ànd àndu naa. fekk ànd boo xam ne du dëgg. Tange politique de euh, Abdou Diouf. waaw Moustapha Niass moo njëkk géer jamono yi euh, politique o boobu boobu ka non boobu tànnooguñu candidat. waaw dama ne Moustapha Niass génn na deux ans avant. Moustapha Niass Djibo Ka. Djibo Ka génn nañu presque deux ans avant. dama lay wax rek politique. c'est-à-dire dina ñi ñi bokk ñoo bokk. c'est-à-dire chaque jour y a l'hypocrisie au Sénégal au Sénégal mooy génnaar rek. tey ku si am teraanga. li ngay yor ba mun a dem politique. suñ la defoon yóbbu woon vaar tey wala ñu xool la cest à ñoom ñëpp si kaso bi lañ jëm. parce que Aly Ngouille Ndiaye il est milliardaire. su dee mais am Mame Boye Diao il est milliardaire impôt mais moom laa lay wax nii. waaw moom laa lay wax nii tey Macky su leen buggee duggal ñoom ñëpp dañuy dugg. mu am na pouvoir boobu Macky rek am pouvoir boobu ku mu nekk am na sa dossier am na sa këyit. mun na la dëgg mettre au mur loolu mais dañ leen di bàyyi ñu gérer. ñom ñepp ñoro àndoon. di añandoo di reerandoo. Tange man mosuma euh, lekk ak Macky Sall mos naa lekk ak Macky Sall une fois quand il était directeur de Petrocel chez tonton Ousmane Ndiaye mo donne patron. Mon papa d'un ami d'enfance Jules Ndiaye mon meilleur ami. Mm-hmm. donc mo donne, fala mos tog ak Macky Sall. Mm-hmm. c'était le mariage de Jules Ndiaye. à part ça son fils l'a xam. Amadou Sall. Amadou tey de rôle lay joué qui politique souvent nga dégg tout tudd Amadou di il accusé. non amul il a fait un parking auto oto alors par ban le fan parking am comme sa xarit la moom. non de sama xarit ça doom la. sa doom la sama doom la. tey koy waxal est-ce que loolu te la. gis nga man de sérieusement. c'est un petit que j'adore man Abdou Salam Ndiaye. le petit est social mu ngi dimbale doomu aadama yi de bruit c'est-à-dire sérieusement. doomu président yi ma xamagum yëpp moom laa si gis mu wàcce boppam ni Sankharé mm-hmm. wàcc na boppam mu ngi dimbale nit ñi mm-hmm. munoon na rëy mm-hmm. rëyul jëmmam rëy na mais moom rëyul